bismillah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara gannaaw looli seen naafile guddik tey gi di guddik fukkeel gi ak juróom ci weeru koor Serigne Souhaïbou Mbacké nee na ku ci julli juróom benni rakan rakan bu ci ne nga jàng fatiha benn yoon jàng ida jaa nasrullah basaaru jeex benn yoon jàng xul huwallahu ahad basaaru jeex fanweeri yoon ak juróom ku def loolu des na nangu ak julleem des na nangu ak kooram te lépp lu mu mas a def ci ay ñaawteef des na ko ko soppil ay yiw te xarafu ci nekk des na ko ci tabaxal dëkk bu mag ca àjjana mel na ne it ku lelee mbooleem xeetu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam te mooy ku jox lekk mboolem xeetu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam yal na ko yàlla man loo nu def ko def ko na mu ko taamoo mu nangul nu ko fulal nu ko làqal ñu ko fi yàq yigul barke Cheikhul Xadim